ناجيته ساء الحرس الهاسم بالحب مهدر الناس وليا كان بهاسم وسانني عن وسادي نهى بتوحيد الآحاد قلبي يا رب المنتهى ولم يكل سفري وبلدي إليها غاد في سفر خلي واحبي بسفر مستغنيا عن النفر بجنده في خلدي لم ينهني مبارس فيدو رب باريس إبليس لا يباريس جند العزيز الأهادي لم ينهوني من اعترض أو من لي قلبي مرض ولي يقود في الخيرات ربي يا asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp mbokk yi ñoo ngi ci barab bu sell di barab bu tedd di barabu soxna Aysatu Jóob moom sëriñ kokki Mor Xureja Kumba mi nga xam ne mooy woy juru sëriñ Masamba Mbàkke radiyallahu anhuma mu mel ni bu ngeen gisee jotaay bi ngeen xam ne jotaayu ndigal la ñu teew fii ci ndigalal sëriñ Mamor Anta Sali Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa ma Massamba ñuy ñaan suñu bon yàggal ko fi te weral ko ba yéen yi am ci yéen liggéeyal ko lislaam ma Massamba ci yoon bi ak ci njaboot gi ak ci diine ji ñu ñaan suñu borom defal ko ci lu kawe bépp njort ñi teew fi nag ci kilifteefu Serigne Cheikh moom sëriñ Mahmoudan mi nga xam ne moo yor kàddug njabootug ma Massamba mbake waaye nag ci teewaayu sëriñ Ahmadou Mbakke jëwriñ sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba mu ànd ak jëwriñam di moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba waaye ci teewaayu sëriñ Muxtaar Mbakke moom sëriñ Maam Anta Sali ak Serigne Abdoul Khadr Mbacke moom suñu Mame Anta Sali waaye tamit ci Thiawé ba tey sëñ Abdoulahi Ndiaye di ci ay jëwriñam mbokki barab bi ñu taxaw nag bi ngeen gisee nii barab bi bindoo dañu ko yeesal ci anam woo xam ne dana dëppook jamono ngir mu dëppook jëmu ju tedd ji nga xam ne moo ne ci barab bi ki am tawféexu nag yeesal barab bi mooy ma dikk Niang di taalibe ci kër sëñ Massamba ci ndigalal sëriñam waaye nag mu yebal fi délégation bu am solo ci njiitalu sëriñ Modou Roqe Mbacké mu ànd ak sëriñ Mouhamadou njaay mi nga xam ne mooy directeur de cabinet ak sëriñ Gallas Lo ak bokki fi teew yëpp waaye bokk yi ngir sàmmante waxtu yi dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Ndiaye mu dara bokk yu teew fi ci ndigal sëriñ Mamour Anta Sali su noppee nag ñu jébal kàddu gi sëriñ Cheikh moom sëriñ Mahmoudan ci ndigal sëriñ bi mu yëkkati nag kàddu sëriñ bi ngir nag mu jëm ci cérémonie inaugurale bi nga xam ne moo war a jëm ci jébale caabi barab bi kon sëriñ Mahamadou Ndiaye bisimilah tafaddal mashkura min shaytaani rajim bisimilah rahmaani rahim euh, sëriñ Cheikh ñoo ngi leen di ziar ci turu sëriñ Meddi Kiñang waaye di jël ziar bi rek di ko teg. ci loxo sunu jëwriñ suñu axme mu tegal ko ci say loxo eh, di wax ni kàdd yi du gudd ndax kàddu cant la ak cant moom mën naa bañ a gudd sëñ ma dikkee nee na dafa santati santati mooy am amantina tawfiixu bu ngeen gisee lu ñuy liggéey lu am njëriñ ci ab taalibe ngeen dàq ko ko fuuf man gën ko ko man fuuf ngeen am ci moom cofeel gu toll ni eh, da ko fexe ba sas ko ko mu def ko ci seen tur te yéen ko ko gën a man kon loolu moom ak cant rek la goo xam ne da koy dolli rek ci xiiwal yooyu ngeen koy defal nga xam ne jàpp na ne dundam moom liggéeyal sëñ Massamba rek la jaarale ko ci sëñ Moustapha Massamba kon ñun suñu teew fii sax day jëmmal rek ak wone euh, bëgg-bëgg waaye nee nañu sëñ Axmadu fu mu seew mën na ko faa teewal mu dàq gën gën ñoo gën a mën a tee mën koo mën mën a teewal ni mën koo teewal ni ñun ndax li ko sëriñ Moustapha na sunu borom dolli di leeram waxoon rek la jàpp ne kër gi e, du ngeen fi rek taalibe taaw ngeen fi kon jàpp na ne kër googu moom e, ka koy teewal du doon sax ab directeur de cabinet waaye jàpp sëriñam bi rakkam bi bu teewalee moo gën a mat kon nag kàddu yi foofu rek lañ koy daanele mooy ak kàddu cant ak ñaan ñaan gi mooy di ñaan euh, sunu jëwriñ jëwriñam di sëñ Maamoor bi nga xam ne moom la suñu borom teg suñu borom yàggal ko fi lool te wér ak yéen ñi topp ci gannaawam yëpp defal ko it ki nga xam ne moom jaam bi moom lañu yaakaar ci mu toogal fi Cheikh ma Bamba muy sëñ mu Mountakha di léppam di ñaan moom itamit su borom yàggal ko fi lool yàggu ànd ak wér di ko defal taalibe yëpp ak mbokk yëpp.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 di indi ay kàddu yu néew yoo xam ne ci sëriñ Maam la jóge moom Seex sàmba mu jëm ci ki defar béréb bi waaye jëm ci xamle béréb bi ki ko defar mooy Madické Niang yàgg na lool ndax bi fi soxna tëddee ak léegi diir bu yàgga yàgg la tabaarakallaahu mel na ci misaal ne bi sëriñ bi nekkee daaru marnaan muy bi mu jógee daaru salaam ñëw daaru alimul xabiir ñëw fii ci daaru marnaan nekk fi ak njaboot gi soxna Aysatu Jóob mii bokk ci ñi nga xam ne yàlla dogal na mu nekkoon fii bi yàlla dogalee mu wàcce fi liggéey sëriñ bi wax ne nañ ko denc fii ci béréb bi ndax béréb bi béréb la boo xam ne ni bérébu Tuubaa mel rekk la mel béréb la boo xam ne barke am na fi yaakaar am na fi ba tax na mën nañ ko denc fii ñu denc ko fi dañ ko fi dencee te dina fi lu yàgg mu mel ci misaal ne aajoon ak yeesal yeesal googu nag yàlla taw fee xale ma dikke ñaa mu mën koo def dëgg la naam bari nañu ko waroon na mën a def ñu bari am na amoon nañ yéene ji waaye doon du seen wàll moom wàllam la tabarakallahu mu defaraat ko mu joxe sëñ bi sëñ Moustapha Massamba jox ko ndigal ne ko mën nga koo defar nga dikk jox ko galasloo mi di ko ko fi nekkal di ko taxaw ci yu mel noonu ndax bu leen fàtte ne moo ko taxawoon ca barabu Seex Massamba ba na mu meloon melokaan wa soppiku lool gën a taaru gën a dëppoo ak Cheikh Massamba ma fa tëdd ak njabootam nga fa nekk bi mu ko waxee loolu moom it mu ñëw am xalaatu boppam xam ne lii lu mat a defaraat la mu seet na muy gën a baaxee gën na wére gën na daare te gën naa dëppoo ak jamono gën naa dëppoo ak lislaam mu defee ko noonu bi mu ko defaree man ñëw naa fekk ko fi boobu muy bëgg a mu sotti tuuti waaye àggagul mu wax ma ne mu ko xalaate ak ne mu ci bëgg a def nu rafetlu ko loolu noonu itam ba mu ko defee nag mu doog a jël ay matukaayam def ko ba mu mel melokaan wii mu mel ni ngeen ko xamee ci barabu ku baax ku ne ayaatul quraan la ñuy gën di faral a def mu wër ko ndax dara gënut a tedd alquraan ba mu ko defee moom itam ba defe loolu mu def mu mu sax ca loola ba bërëb bi àgg am na jamono ma ñëw fi fekk na booba dafa mel ci misaal ne dafa mel ci misaal ne la ca des bariwul waaye kaw gi desoon ab liggéeyaat ku xam liggéey la mu ne dafa bëgg defaraat ko ba nga xam ne ndox ak yëpp dara du ci man dara état cité ko ba mu mel ni mu war a mel mu def ko ko fa tabarakallahu ba mu dëppoo ak jamono bana waaye dëppoo ak lislaam itam dëppoo dayo soxna si nga xam ne moo fi tëdd loolu liggéey na ko ba mu àgg ab diir sëriñ Moustapha nekk fi sant ko ci gërëm ko waaye bi suñ borom dogalee mu wàcc ab liggéey sëriñ Maamoor Anta Sali jël liggéey bi waxtaan ci ak njaboot sëriñ Moustapha waxtaan ci ak ma dikke sant ko ci gërëm ko ñaanal ko xamal ko ne ku am tawféex la ndax yi mu liggéey yépp taw ku am tawféex rek a ko mën a def na mu def barabu ma sàmba def ko barabu soxna sii fa tabaarakallaahu ku am pas-pas moo ko mën a def koo xam ne la nga cay def doo ko gis waaye la tax nga di ko def ngay gis noonu moo doon mooy doxinu ma ma dikkee waxtu wu ñëwee ci moom galas day xool la gën a baax gën a qualité mu ne ko nanga ko fi def loolu def na ko fa tabaarakallaahu ba yàlla dogal béréb bi mel nii mu mel soxna si nag ku yàlla dimbali la ndax koo xam ne sag ñëw ci kër sëriñ Tuubaa ci kër sëriñ Tuubaa ko sàkku ñaanal ko ndax na mu ko ñaanalee daf ko wax ne day dafa am dafa dafa doon ko am xel ndax hmm. ki ko njëkkoon na day koo xam ne ku xam àdduna la woon mu ne ko day damaa ñëw ci kër gi te naaja fee ñëw lool ma bëgg nga ñaanal ma sëriñ bi ñaanal na ko ñaan koo xam ne daaw ko defal kenn toog mu war ko di jàng di jàng di jàng ba ñaanal ko kooku kon lu ci ju sosoo ak ñaanam ci la gannaaw yàlla mi nga xam ne mooy dogal moo mën a bind te moo mën a rey xalaqal mawta wal xayaa kon ba mu defee loolu mu dem ab diir ah, sëñ Mor Anta Sali wàccee ab liggéey ba mu wàccee ab liggéey mu toogub diir ay weer ñett ñeenti weer baa lu ko jege Seex Masamba doog a gane àdduna ca Pataar mu dend ak Njaañ ba mu wàcceeb liggéey sëriñ bi ñëw fi jóge Mbàkke gi dem sàkkal ko aw tur tudde ko ma Masamba Anta Ceebu mi nga xam ne moo doon seen maam noppi moo jàngaloon sëñ ma orante sali alquran bi mu ko ko tuddee sëriñ bi nag loolu mooy histoire seex ma sàmba kon dañuy wax Seex Masàmba ñetti cër yi mu am ci sëriñ Touba lu yooyu la benn ba mooy ñaan ngi mu ñaan ba yàlla dogal bu gane àdduna mu bokk ak moom sëñ Mor Anta Sali beneen ba ca muy sëriñu taalib bi yëpp te Seex Masàmba mu ba mu ganee àdduna rekk la doon taalib sëriñ Touba mësula teggi tànkam ba bi mu fi jógee noonu la mas di loolu mooy histoire soxna Aysatu Jóob mi bintu Mamar Xuja Kumba moom ma amoon anta ceebu ma sàmba anta ceebu kooku mooy soxna Aysatu yàlla dogal mu bokk ci ñu baax xeet wu baax woo xam ne ñef ku ci masa bokk tekke nga dara ci lislaam tekke nga dara itam ci askan wu nga bokk kooku mooy sëñ soxna soxna sii tëdd fii tey di nit ku baax di nit koo xam ne jar na siyaare jar na ñaan ci moom te lépp lu ci waay def suñu boroom mën na koo may ndax ku am gërëmul ku baax koo gërëm mu gërëm la koo koo gërëm ku la siyaare si am gërëm mm-hmm. loolu mooy li waral lii ma dikke nag jëfam sëriñ bi nee na xam na ko bu baax xam na pas-pasam xam na yitteem xam na yéeneem xam na pas-pas bi mu am ci Seex Masamba waaye bi mu am ci njaboot Seex Masamba rawaate na sëriñ Moustapha sàmba loolu dafa rëy lool fa tabaarakallaahu te amul dara lu mu lu mu yéem a def ci Seex Masamba ci njaboot gi amul dara lu mu yéene yéem a def ci lislaam kon noonu mooy doxinu ma dikke fa tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla dimbale bu baax yàlla tawfiixal ko yàlla xeewalal ko ba li mu yéene lépp mu am kàttanu man koo def defeen wu rafet wu sell woo xam ne la mu ci yaakaar lépp dana ko am loolu sëriñ Tuubaa de wax waqdi awaaija la siina daamu fii xidmati waxab la maaraamoo yal na ko ko yàlla defal ah, moom nag leeral na lool lépp biig rek wax na ko wax na ne day sëriñ Moustapha mooy mooy sëriñam di baayam muy taawam bi mu fi jógee itam sëriñ Ahmadou mii mooy moom la topp ndax feddali ko la mu amoon ci sëriñ Moustapha sëriñ Ahmad Root doon xalifa sëriñ Moustapha Mbacke Massamba di ku ko mate di ku jub ku jàng ku topp ndigalu kilifaam sëriñ Moustapha di jëfe loolu lépp moom ak sëriñ Cheikhouna mi nga xam ne mooy jawrinam noonu mooy seenu doxin lii mooy loo xam ne bëggoon nañ ko see seera tey ci bis bi di leen xamal ne liggéey boobu noppi na caabi yi mi ngi nii ak man léegi li ci des ñu ubbi ku bëgg a siyaare mu ñëw fi siyaare berab bi ñaanal fi sa bopp ñaanal ko moom itam fi tabarakallahu nee na am na kuñ doon wax xam nga nan Njaay Njaay Murit nee na moom la bëggoon mu yoraale béréb bii di fi xëy si di ko ubbi di ko defar di ko sàmm niñ ko niñ ko war a sàmmee ndax ump leen ne béréb yu baax yi nga xam ne moo nekk ci biir Touba yëpp. tàmbale ko ci mu Rasuul ak njabootam yépp ak rakkam yépp muy Seex Masamba ak ñamel ne moom. bu ca nekk am na ku ko yor. am nañ tawféexi man fa di fa jàng kaamil alxuraan ci bis bi benn yoon wala ñaari yoon. soxna see dana dem ba àgg foofu. ndax incha allahu buñ demee ba defar fii luñ fuñ mën a toog di fi jànge dana am ñu mën a jàng alxuraan ñëw di fi jàng dana am ñu mën a yëkkati xasiida ñëw di fi yëkkati xasiida te loola bu boobaa dana doon jëf ju mat sëkk joo xam ne dana dëppoo ak dayo bi mu am dana dëppoo ak pas-pas bi mu amoon dana dëppoo itam ak Cheikh Massamba mi nga xam ne léppam sëñ Tuubaa la lii laa amoon lu ma ci sànni ciy kàddu maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant ma dikke di ko gërëm ci turu sëriñ Mamour di leen di ñaanal itam kii ko doon liggéey ah, ah, galasloo sunu borom defal ko tawféex ndax am na tawféex yu jafe de. Mm-hmm. ñaari liggéey yëpp ak ñett ba yu bari sax moo ko taxawul ma dikkee kon kooku ku am pas-pas la fa tabarakallaahu li la amoon lu may wax sëñ bi la ma waxoon naa leen ko jottali. xamal leen lëf ci soxna si xamal leen lëf ci ma dikkee. Mm-hmm. Euh, euh, wane ne gërëm na leen sant na leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëgën jëf mbokk yi noo ko déggandoo kàddu yu bàyyi ko ci Serigne Cheikh moom Serigne Mahmoudan muy kàddu sëriñ Mamor Anta Sali moom Serigne Massamba kon mbokk yi barab bi ngeen di gis mooy barab soxna satu Diop di wayjur Serigne Massamba radiyallahu anhu muy barab boo xam ne barab bu mat a bàyyi xel la. di barab boo xam ne mboolem waa axlu xasida bokk na ci barab bi nga xam ne war nañ koo jiital ci liggéey bi ndax sëriñ ma Massamba bi nga xam ne moom la am taw tawféexu sëriñ bi jagleel ko xasida yi tey jii ba jullit yëpp di ci jariñu murit yëpp di ci jariñu yaakaar naa ne wooy juram mu murit di xasee ba xam barab sàngam la féete yaakaar dara du ko jiitu ci aw jitte kon barab bi nag mi ngi nekk fii ci armeeru dara Darou Marnane yi jàkkaarloog kër sëriñ Touba bi nekk ci garage bu njëkk bi kon na ko ñëpp bàyyi xel jubluwaayu jotaay bi sax dëgg-dëgg mooy xamle barab bi ngir ñu ko xamul woon xam ko ngir ñu ko xamoon tam gën cee bàyyi xel ndax barab la boo xam ne kilifa yi fi tëdd bari na ma sa ci tudd Serigne Modou May Lo di kenn ci magi yoon wi di kenn ci kër ma sàmba soxna say Daaru Mbakke moom borom Daaru Muxti moom it fii la ñu ko jent kon barab la boo xam ne daal barab bu barkeel la kon ni ko sëriñ bi waxee rek fu waaye mën a nekk lépp lu ñuy def jëmane ko ci alquran ak xasida ak tudd yàlla ak salaatu ala nabi ñu bàyyi xel soxna Aïssatou Diop mi nga xam ne moo ñu taw feexal jëmu ju tedd ji jaare ci moom di sëriñ Massamba kon ñoo ngi sant ñëpp su ko defee ñu maase teewlu ñu jébbal caabi yi kilifa gi caabi yi mën na ibbi barab bi su ko defee nag incha allah sëriñ bi mën ñoo ñaanal jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah وما جاء للهالك ابنك لا بهالك هند الهالي الممسيك يا عمر المالكي يوم جاء للهالك ابنك لا بهالك عند الهالي الممشيك بارك في كسو الجلال وفي ابنك نافي دلال بما يوخل لدو الحلال لخاري ممشيكي هدياتي خسي بلا رد كما تخبيلا هند كريم خبيلا من جدي